seen turu seen turu copain la seen turu. yow sa copain boobu da ngeen a yàgg DG yàgg na de moom lu ko teree. waaw léegi léegi waaw tamit mun est-ce que faru rab sax man. Hmm. mun na mais DG mi ngi fi. mi ngi fi mi ngi si jàmm. ok tentation yi nekk ci milieu bi Marie il il arrive ñu proposé la proposition canapé comme on di defal ma lii ñëw ñu dugg fenn sa mës na laa dal. non mësuma laa parce ku nekk nag ak. luñ lay yaay xam luñ lay xoolee. mais man hmm. loolu moom mosuma dal. tu penses pas que sa habillement ci sa façon de faire nit ki du du du am attiré loolu du ko attiré ci yow. même pas. pour xam la daal mun naa jéem a xam parce que man moom nee nee naa. premièrement premièrement soo ma gisee dana ne kii dafa sévère day fas kanamam ndax loolu lañ may njëkk a teg sax doo waxee réew na lañ la si njëkk a teg sax nit ku ne nit ki mun na mel mun na mel nu la ne am mais ful la yow yaa koy may sa bopp. dignité yaa koy may sa bopp fayda yaa ko may sa bopp may sa kenn du la ko may ku la gis kat ku la gis xool la ba respecté la si yow la. et ça te gêne ñuy wax ne Marie Marie Pierre moom euh, elle est frivole Marie Pierre dafa dafa sexy wala day wane ay mettre en valeur yaramam loolu gêné wu la yow métti wu la. ça me gêne parce que ñoom xam nañu carrément loolu ce n'est pas sexy parce que ton de jeu la. ñaata nit ñooy dem instant yi di fay ay millions di dem di chirurgie ñaata nit ñooy dem di defaraat seen bopp ñaata nit ñooy dem pour am loo xam ne yow yàlla moo la ko may. naturel mais donc ñoom li ñuy wax nit yaa ngi dem di ci fay ay millions di dem pour am kon sa bos nit yaa ngi dem di tukki di di feebar di si def pour am ko donc yow la am ko tamit loolu la mënoo ci dara. mais am ko ak li ma encore une fois am ko ak def ko nii ça fait ñun ñii dañ koo yor mais defuñu ko nii. mais yéen yoroo leen ko yéen seen bos. Euh. ku yor boo xam ne ni c'est naturel bu la neexee. boo boo ah. que ni t'as une relation particulière avec Keba Seck la. sama papa la sama xarit la sama baraadwaa la sama lépp la. lan moo leen boole yéen ñaar. ah jeexi ngoone lay liggéeyam am Cheikh Mbaye. Euh, mu nekk dinañ ci mu nekk production après keebaa ñu ñaar ñuy liggéey mu def ma papa ma def ko papa mu def ma doom mm-hmm. waaye bëgg ma nag Kéba bëgg ma Kéba dama ko lakkal daal ñuy wax ne nag Kéba yàgg Kéba da a <laughs> maanaam Kéba da jël daal Kéba sama papa moo may jël ah mais papa day jël doomam lan moo ci ne ah Ousmane ay ay papa mënul jël doomam papa boo xam ne du deret du du sang da koy jël. Kéba nekk si yooyu Kéba kilifa la. ah. <laughs> Kéba sama la bëtu papa la may bëtu doom la may xoolee. <laughs> doom boo jurul. ah, ah? <laughs> ah, ah man de for naa ci wéyu bay ñu ne. Hmm. Kéba da lay jël. ah maa ngi koy soog a dégg si yow sama la de. Hmm. te doo nangu jël bi. non Kéba sama papa la. lan moo leen papa woo. Kéba foo ko fekk mu xamante xamanteeg yow. ba ngeen am relation wala da nga koy baali ji. da koy dem boîte di baali ji ba relation boobu ñëw. non Kéba dañuy liggéey ma ak moom mu def ma doom ma def ko pap moom laa bàyyile sama bopp. bu ñu la doon maye moo lay maye Mari ñuy wax. Mari Kéba la ñuy wax. ok Pierre bi dañ na. dañ na <laughs> def naa Mari Kéba Seck. sa relation ak El Hadj Keita no non Elias tam moom ñoo bokk Medina baax na am na ambition bëgg na ci lu muy def amul benn problème moom Baye fa la moom moom moom chapeau. Mm-hmm. da nga koy baale. waa dama koy bàyyi lu mu xew la ñu dem parce que Medina la tamit te Medina tamit 100 pour cent Medina la ñuy wax tamit. ok ñu ñu ñu taxaw foofu un peu pour wax ci showbiz bi li fi nekkoon fay gis nga clash bi am diggante Wally ak euh, nu mu tudd di Diop. yow yaa ngi ci showbiz bi parce que mën nañu wax El Hadj Keita moom nee na yoonam nekk ci du ci débat et c'est bien mën c'est mën ko nangul ndax position bi mu am yow en tant que euh, nekk ci showbiz bi en tant que top modèle euh, sa xalaat si loolu yaa ngi baali wàll di baali Sidi. man daal ku ne rang ma topp jeex na taat ñoom ñëpp laay dem. tëgg bi daal moo la ngay topp yow tëgg bi rek ngay topp man daal fépp laay dem aw ma xaajale xaw ma seen. mais mais clash bi am seen diggante. ah mais Sénégal lañ nekk tamit mënuñu si dara. ah c' est normal pour toi. normal. Hmm, parce que. ah showbiz la ñuy wax tamit. showbiz la showbiz la ak lekk. mais tamit bu fekkee ñoom loolu la ñu sentir tamit. jéem la ñuy def euh, dans le milieu du lan nga ci dund la métti loo xam ne boo ko xalaatee say bët taa lu ñu def ci wàllum bu jigéen wala ci ci yàq sa der parce que xam nga ni chaque jour mari mari ñu yàq sa der. nga yëg ko nga bañ koo yëg. mais na ma wax la man dama part wàllu showbiz Sénégal doo si nekkee fii ñun ñëpp a yam Sénégal mais yowoo mi manoo mi keneen ñëpp ku fi wéet wax keneen gi mais man dama part mooy sama kër lay toog man sama man daf ma yam génn naa sama maam ma yam man génn naa doxi sama soxla ñëwaat naa man sama kër bu may génn sama saak sama dàll man koot su ma ñëwee toog ak nit yi waxtaan ñu waxtaan ñu ree ku ree ma ree non Marie nag yaa ngi génn guddi arrêté ñu ñoo ngi lay suivre yaa ngi enjoy di génn di dugg ci resto yi di dem ci plage yi te am te une chose may ma benn question ma laaj la ko dañ lay gis ci ay hôtel yoo xam ne nee nga da ngay liggéey mais yaa ngi ci ay hôtel yaa ngi ci ay euh, milieu huppé yoo xam ne da lenn foofu xaalis sa koy mais mais mais loolu yëpp yaa koy fayal sa bopp doo nangu benn góor bu la ko fayal. on se la vérité sincèrement. Mm-hmm. man dama euh, yoon dañuy Sénégal tour du Sénégal ren man maa wax dañuy. lan tour du Sénégal. tour du Sénégal da lay def. hôtelu 5 étoiles ak yow kee kee dugg moo ma dese instant yi. ah moo tax ngay dugg mooy valet valet di kee dugg. ci vas le soir imagine la dem ay euh, Radisson 1 million 500 ñu bind 1 million cent def affaire yi sa ndékki sa yi du fay def sa liggéey. la génn demaat euh, hôtelu kii Kaolack Club Adine la dem def fa ay 2 million 3 millions la pare dem Kidira ay 1 euh, million 1 million 500 mais 1 million 2 millions 6 xanaa ma je suis waaw moo tax ma ne la yow joxe woo ko dañ la koy jox. léegi moo tax ma ne la yaa ngi may tontu de <laughs> xanaa man 1 million 2 millions 3 millions yooyu xanaa ma je suis millionnaire. léegi bu fekkee loolu kay man millionnaire laa de. déedéet yow déggoo ma de dama ne la yow loolu amoo ko doo millionnaire cent franc ndeer nga amoo ko. maanaam peut-être ay góor pour dire les moo wala kenn koo xam ne moo lay financé moo la yor nee nga nag da nga gagné loo wax tour du Sénégal. damay def tour du Sénégal man maa ko gagné ren. kan moo la ko ban ci ban ci ko àndal ci loolu. affaire bi des nañ ko. dalay dem kii dëkk yëpp. ko kan kan nga ko doon kan moo ko organisé en fait. ba nga gagné mais Patrick la ba ñu gagné ko benn gaañ. Patrick. Patrick fii Mbao ñu ko defoon ñëpp def ko parce que dafa jóge ba Europe ñëw ñu def ko léegi dañuy sélectionné ay gel yu bëri ñu koy dem dañ koy def. léegi yow ci yan critère lañ tege nag yaa ko war a gagné sein en l'air forme mais après ce n'est pas wala beauté non yéen tu comprends pas loolu c'est notre travail donc. léegi loo c'était c'était quoi la compétition loolu c'est notre travail bu fekkee travail boo xam ne c'est notre travail loolu c'est notre travail. bokkul ak li nga li nga doon def bokkul seen travail loolu c'est l'autre mais c'est la personne de marie moo ko doon def. mais c'est la personne de d'autres tamit parce que am na ñu jóge ba Italie am na ñoo xam ne li ñuy fii am na yeneen influenceurs yu mag yoo xam ne loolu se beneen travail boo xam ne loolu la. c'était ak teeru bi. donc waay. on peut pas gagné ko di wër hôtel yi. loolu da lay kay après doo ko gagné choix travail tamit. looy liggéey. lépp day liggéey da lay dem. ci m'as fait des découvertes comme genre touristique man tey gan bu ñëwoon jógee ba Europe mën naa ko yóbbu hôtel am mën naa ko lijjanti gaalam batoom li mu fiy def jour yëpp mu ñëw taxaw ak programme am yëpp programme am bu paree. genre guide ngay door genre guide la. tu fais bu paree mu ñëw sénégalais nag xamale la du ñu xam c'est quoi le travail. y trop de travail tu peux mais ñoom duñ loo xam yow yaa bañ genre dañuy ñëw instrument. da lay def gët bu paree kooku fay la xaalisam yow la jël sa mais xam nga yow loolu nit ñi duñ ko gis xam nga la ñuy gis mari mu ne ci hôtel bi nekk ci biir chambre bi di si na boppam. di def ay affaires bu ko defee les gens vont croire mm-hmm. à. Ah, ah. loolu ñëpp a gis nañ ko c'est les ñu xamul xel ñooy toog di wax. mais ñu xam dëggantaan yaay xam nañu carrément la travail parce que gut ñëpp xam nañ ko liggéey. Mm-hmm. si si milieu bi nga nekk lan moo la ci gën a neex loo def mu neex la si connaissance wala ci am-am. ma liggéey bi ma nekk moom ma wax si